kajoor mm-hmm. xaw kajoor xaw ma bawul <laughs> eh, foo wax rek li ma jàpp rek sin saalu wala <laughs> <laughs> donc li ma jàpp mooy que loolu en tout cas li ñuy togg wala li ñuy waxtaane du fii lañ koy waxe mm-hmm. benn ndax bo man dama bokk ci ñi gën a tuuti quand même ci coalition bi ngir wax li ñuy togg ci plateau xëy na li ma ci xam bareewul noonu donte ne membre secretariat national bu alliance pour la république la mais nag li ñuy togg quand même yi Euh, sorewuma ci donc mais nag dama ne la aussi loolu du lu bon togg waxtaan xam nga sànq ci sa wax waxtaan déglu naa la bu baax nga ne ma situation politique dafay changer dafay laaj doxalin alors li indi Benno Bokk Yaakaar duggaat ci biir mairie daka quand même mun na indi beneen coalition boo xam ne dañuy sànq loolu kenn kenn kenn du ko dax ndax ci politique lañ nekk ci Sénégal lañ nekk. Mhm. bi ñuy dem 2012. amoon nag Benno Siggil ak tanoor Benno Siggil ak Moustapha Niasse ñun ñu amoon Macky 2012 eh, sa Seck am coalition keneen ak keneen mais bi ñu demee ba ba ba ci cappaandaw bi benn coalition bu mag muy benn bokk yaakaar dañoo su loolu ay tur la rek tey nga tudd bàcc suba demb beneen subu euh, euh, beneen tur mais li ma la bëgg xamal aussi ci li nga wax ci président Macky Sall loolu euh, ba ma gis ko d'accorduma ci ak yow parce que président Macky Sall quand même kenn puusu ko ne Macky bul bokk kon bu nekkoon ne dafa bugg a walla ñëw bokkaat. pression moo tax moom. non pression. alors pression defe naa li li ngeen doon wax pression wala li ngeen tiitoon wala li ñenn nañu tiitoon. man moom tiitu ma ko ci plateau bi yàgg naa wax. voilà donc euh, li ëpp solo. Mhm. defe naa doxal nañ ko ci nu mu waree mais président Macky ñun ñi ko xam jege ko. te dama ci bokk nag mun ko assumer fii ci plateau bi te kenn du ko wetti dama bokk ci ñi ko jege. xam nañ ne président Macky Sall kenn mënu ko ko xatal léegi yéen dem élection ak euh, sans le le principal opposant euh, bu actuel ngeen dem ci élection bu mel noonu ndax yaakaar nga ni dina am crédibilité pour yéen dama ne la hmm. ay opposition ñu ngi fii yeneen opposition moom moo mujj ñëw ci opposition bi. waaw mais mu ëpp doole yow sànq yow sànq non non non lu mu ëppee woon troisième la génnee ma ne deuxième bi rejoindre na élection présidentielle yi mujj deuxième bi mooy Idrissa Seck. waaw moo tax ma ne la moom mooy troisième bi. voilà donc te deux Idrissa Seck deuxième bi yéen daf leen mujj. maa bi troisième bi da ngay xam ñaata lañ la ko Idrissa rawee parce que moom quinze. ba tey mooy troisième. et quelque la am. ba tey mooy troisième da ngay xool rawante bi xam nga ñun chiffre la ñuy calculer. ndax xam nañ ku ci nekk li nga am ak fi nga am ak fi nga amee doole. kon loolu tiit tiitluñu xam nga li ci li ci ëpp solo te li ko yóbbee euh, bañ bañ a bokk élection aussi loolu yow du man. Macky Sall la. non non Macky Sall moo ko yóbbu euh, euh, euh, pousse ko mu def moom moo machine moom moo moo moo moo tëral lépp xoolal. gis nga Macky Sall lu ñu ko may. waaw dama lay après nga continuer dama lay nga continuer rek nga continuer dama laa ñaan rek. voilà boo ma laajee. Mm. ñu ànd. mais débat waaw débat la rek non non mais bu ma ko def bu ma développé parce que Aïcha sax apparemment loolu parce que dama lay expliquer rek parce que kenn néewu ko doxal lii wala waxal lii. ñaar moo ko yóbbee wax ak dox lépp lu ko tooñ te doomu aadama bu ne maa ngi parler sous le contrôle du stas li koy lor sa loxo la mbaa sa bët wala sa làmmiñ wala sa tànk. Ablaye Wade su amoon taxawaay bu Macky Sall am. Ablaye Wade Macky Sall bii ka Ablaye Wade wooyee parce que taxaw na fii taxaw na fii ne ko wooyee. taxaw na fii ne mhm. dañuy dañ dañ koy dem jëli pale wax na ay milliers de jeunes yoo xam ne ma pare nañu pour li mu wax li mu wax même gravité la c'est juste parce que Ablaye Wade question d'élégance Kajoor je suis désolé Macky Sall waxul loolu bi Macky di wax loolu la rek bi Macky Sall di wax maa ngi taxaw jógee Ranérou ñëw ci mitin boobu Macky lu mu wax que su ma la gagné élection yi bu ma gagné ba pare nga bañ ne dama gagné te yoon jox ma ne dama gagné dama lay génne foofu. très bien mais honorable ah, Kajoor mais jóg rek jógee jógee Ziguinchor ne damay jubali. bale génne nit quand même loolu Macky Sall wax le terrain battre campagne mu ngi sur le terrain foo nga leen di Ranérou Ferlo dans les zones pluriculaires du Sénégal donc léegi intervention intervention dafa dem ñaan njëkk ñu baal ko donc moom na muy ñaanee njëkk noonu noonu la war a mën a mayee njëkk sooy ñaan njëkk ba ñu baal la da ngay mayee njëkk dafa dem ci sëriñ yi ñu mu ñaan fa njëkk ñu may ko looloo tax Ablaye Wade tëju ko élec démocratie moom day kii eh, eh, démocratie Kajoor wax nga lu am solo gis nga ñun sëriñ dañ ko respecté fonk ko ndax fii lañ ko fekk ndax ay sénégalais lañ ay jullit lañ respecté yeneen aada yi ak yeneen diine yi fii musoo dégg ku jóge ci ñun wala ku bokk ci les Euh, euh, républicain di xas sëriñ wala di saaga sëriñ. kenn ku fi ñoo dem ci sëriñ yi ñaan. ñun saa yu ñu jaaxlee dem ci sëriñ ñaan. waaw yéen nag tey li leen sëriñ yi mayoon tey mayoon leen ko sëriñ yi. parce que sëriñ yi ñëw nañu ñaan leen. ngeen bañ sëriñ benn ñaan leen ngeen bañ yóbbante nañu foofu. benn sëriñ ñaan ku dem boslu ku dem boslu ku dem boslu. ndax xaalis boobu ku dem boslu benn sëriñ ñaanul ku dem boslu amul li nga wax c'est pas Ah, ah, ah, Kajoor li nga wax confrontation. Aïcha li wax Kajoor c'est un débat c'est pas wax amul je suis désolé c'est un débat li nga wax amul amul benn sëriñ bu Macky Sall mos hmm. ñaan. nañ ma baal parce que musul def dara. ba yoon woo ko ne ko dama lay tëj loolu amul. da wax lu am aussi boo buggee débat bi sëriñ bi wax na ko amul benn sëriñ vidéo yaa ngi amul benn sëriñ. lan la Macky Sall defal ba ñu ngay ñaan laaj ko sëriñ bi lan man waxuma de sëriñ bi moo ko. ne amul benn sëriñ je défie tout le monde benn parce que Macky Sall mosul def dara. ba yoon nekk dama lay teg loo ko wala bu ñu jugé que ne dañ lay tëj kaso. kii dafa dem boslu ci li doy xelam sa sa ci jamono bi nga xam ne. ñun député yi rek ñoo am makaama génn wala nga nekk ministre wala nga nekk maa ne ñaan ñaan njëkk amul bi parce que deful dara Macky Sall deful dara bay ñaan njëkk amul loolu amul loolu amul. je suis loolu amul Kajoor. amul. Macky Sall musul ñaan Serigne ne dem dañ ma bëgg a tëj jàppale ma amul. loolu maa la ko wax.